pare nga pour bëreeg ku mu mënti nekk promoteur bu la seet si. pare naa pour bëreeg promoteur bu mënti doon. waay na doon promoteur yor sa xaalis dama yow laa bëgg nga bëri. nekkaluma fi kii wala kër. ñëpp samay mag lañ. promoteur yëpp samay kilifa mhm. allahu rabi champion yal na la yàlla borom bi defal ndam. yal na la borom bi taxaw combat boo am yàlla def ci ndam en tout cas ñun ñu ngi sa ginnaaw ñun waa parcelle yëpp. 1 ba 26 Grand Médine Cambérène dafa bari daal dafa yaatu Cité Fadia ak fépp fépp ñu ngi sa ginnaaw. bëggee nañ ci yow bu baax a baax a baax a baax waaw lii moo yëpp waa Jokko TV la ñun ñëpp ko bokk incha allahu rabi champion ca kaw ca kanam jaajëf jaajëf. Campion mooy wër ci biir salle bi ah. ah ok kon kii dafa l'art di entraîner. deux trois quatre cinq six sept. waaw champion Tapha Mbeur xanaa da ngaa làqatu di entraîné. ah. ah waaw lii lii moom lii moom incha allahu rabbi moom dara waru cee topp lu dul nga am combat. waaw ñu la koy ñaanal nga am combat bu baax a baax a baax. waaw waaw waaw mais fi mu nekk nii actuellement Tapha Mbeur noo gisee entraînement yi. Mhm. a. teel a rattrapé wu. mais bu ma ñëwee nga nan ma ma yoon. ci diir bu gàtt commencé naa gis sama bopp. Ah, waaw alhamdulilah kon léegi léegi léegi di wax promoteur yi léegi. dafa Mbeur pare na pour bëre. wala Tapha Mbeur dafa am lu muy xaar. Tapha Mbeur pare na pour bëre. waaw promoteur yi laay xaar. ñu jox ma adversaire jox ma cachet. ma dem bëre ndax askan bi sama combat lañu xaar. te entraînement yi dafa métti. waaw compétir rek la laaj. waaw pare nga pour compétir waaw mais kon léegi ñi ngi woo promoteur yëpp di leen wax nañ ñëw fekk si Tapha Mbeur jox ko combat parce que xale la boo xamante ni pa parcelle bëgg nañ ko parcelle am nañ ci moom yaakaar te mi ngi entraîné ñun loolu leer nañu parce que ñu ngi koy gis suba ak ngoon mi ngi entraînement mi ngi ci forme macha allah Tapha léegi ñu lay laajaat tey exemple Tapha yan adversaire ñoo nekk sa kanam waaw hmm. waaw gis nañu maay sama rëbb pour ñëw maa ngi koy mais daal adversaire bu jàpp ne yaa ngi Tapha Mbeur combat la waajalal te xam ne maa ngi sa kaw promoteur yi ma fi bàyyi ñu askan wi laajee sama combat. mais dafa am ay